mais om oh, Karim Wade rek lañ ci tëj ci ku ku ñu xam dëgg-dëgg. Mm. alors que vingt cinq personnes lañ lañ waroon topp. bi des mooy affaire IGE gëstu na gestion Khalifa Sall gis fa ay tooxi ay lu ko mm. ñu jàpp ko mais Karim Wade ak Khalifa naa naam li ñeen ji ñoo ko def waaye nag du ñoom rek ñoo dëng ci Sénégal sentiment boobu sénégalais am moo inacceptable c'est pourquoi man personnellement je souhaite que président bu dellu si lu mu gën a gaaw. rapport bi cour de comptes génne mm. ñëpp ñoo xam ne tax nañ ci yorinu réew mi bu bon mm. yorinu alalu Covid bi bu bon na leen jébal yoon yoon atte leen alors euh, euh, euh, dëngte gi nga tudd ci ci Khalifa Sall tudd ko si Karim Wade te xëy na sénégalais yi am ci ñoom yaakaar seen dellu si problème la président Macky Sall ci boppam ne ne am faaw ñu amnistie leen ndax ñu ñëw bokk ci lamb politique bi kon fan la correction bi nekk baat nañ corrigé d'abord Macky Sall waxoon nañ leen amnistie daf ne nañ fexe wutal li ni bunt ba ñu wote ba ñu bokk ci élection yi mais d'accord ma ci moom lu tax parce que Khalifa Sall li ñu ko jiiñ moo ko def fausse facturation moo ko def di def ay facture na lay jënd ceeb mais loolu c'est depuis c'est depuis Macky loolu wax la rek loolu élément de langage yu ñu jox. c'est depuis Mamadou Diop honorable. Fatima maa la gën a xam ne. caisse d'avance dama Fatima non bu ma tudd waxu caisse d'avance moi je parle de fausse facturation li ma la wax maa la gën a xam parce que j'étais membre du conseil municipal de la ville de Dakar est-ce que xam nga loolu wala xamoo ko woon donc li ma la wax man xam naa ko. Hmm. moom moo doon def ay fausse facture ñu di ko jox fanweeri million weer wu ne mu ne di jënd ceeb ak dugub ba UGF ñëwee dem ci UGF bi ne moo doon jaay ceeb bi. Hmm. laaj borom GIE bi ne ko yow yaa doon jaay ceeb maire Dakar mu ne musuma ko def. ñu dem ci ñi nga xam ne ñoo ko war a réceptionné mooy magasin ba. Mm. ñu leen est-ce que mas ngeen a gis ceeb ak dugub ñu ne mosuñu koo gis. ñu laaj secrétaire général du GIE bi. Mm. secrétaire général du GIE bi mooy secrétaire u Mbaye Touré directeur directeur administratif financier de la maire Dakar. Mm. xam nga loolu rek déjà jubut mu ne sama patron moo ma daan jox kii ne ma signé donc gis nañ ko alal joo xam ne kenn xam nu mu toll ñu laaj ko foo ko jëlee muy wax waxul lu leer. muy enrichissement illicite. Mm. kon encore une fois lañ leen jiiñ pour man. Mm-hmm. ñoo ko def waaye nag li ma gën mooy du ñoom ñaar nag rek. ñoo yor yor ñu mu dënk rawatina ci nag le cas de blanchiment yi di cite Karim Wade parce que ñaar fukki nit ak juróom lañ ko boole woon mais Karim Wade pourtant lu ne blanchir na ko fii CEDEAO woo xaw wax na nañ tëggaat mënu ko blanchir international kan moo tëggaat procès bi moom bëggul bëggul bëggul bëggul sax ñu ñu tëggaat procès la bëgg muy Karim Wade li mu yor bu waxoon fu mu ko jëlee mu leer nañ kenn du ko jàpp yooyu ay élément de langage loo xam dañ ko jaar li yéen loolu jaaxal na ma nag non non lan moo la jaaxal d'après ni bi demee yëpp d'après ni ñu gisee da ngay góorgóorlu ba xam lan mooy crée yi d'abord ak nu muy doxee yooyu yëpp honorable ah, man xam naa ko quand mais demal demal s'il yi mm. noonu lay doxee bu la gisee alal ju bari waaw daf naan lii lii yaa ko moom nga ne waaw d'accord mu ne jox la weer ne la wax ma foo ko jëlee soo indee wax lu leer mu bàyyi la soo indee wax lu leer mun la enrichissement illicite léegi moom yi nga xamante ni yëpp def nañu ko si ay appel ci CEDEAO appel sur le plan international te pourtant ñooñu ñëpp dañ ko blanchir et puis daal ne nañu tëggaat procès bi jaarale ko si jaarale ko mais CEDEAO rek dafa dafa xotti li li nga xam ne jox nañ leen ko honorable yi président bi moo ko créé woon bi muy door a toog boor les années quatre-vingt Macky Sall fii la ko fekk dégg nga lu la kër yi noonu lay doxee te lool bu Sénégal rek moo ko am boo demee États-Unis bu ñu la jàppee ci drogue yow yaay prouver ndax am euh, euh, tu es innocent ou pas maintenant nag man d'accord naa ci ñi wax ne CREI yi dañ fa war a def double degré de juridiction. Mm. maanaam bu ñu la fa attee parce que CREI bu la attee doo am appel bu ñu la attee ta sànni tàccu la man jàpp naa ne war naa man a am double degré de juridiction mooy bu ñu la attee ba daan la nga am def appel ñu attewaat la loolu c'est une faiblesse war nañ ko cee mën a dugal. Mm. mais encore Karim Wade ak Khalifa Sall li ñu leen jiiñ ñoo ko def kii il enrichi de manière illicite kii des moo doon def ay facturation xam nga nag Sénégal li ci kii maanaam mooy. Hmm. politiciens yi bu fekkente ne rapport wala yu mel noonu wala tribunal dafa dal ci seen kaw. Hmm. bu dee opposition bi ñu ñu xas kii def rapport bi. Hmm. xas tribunal bu fekkente ne nag euh, euh, euh, maanaam rapport bi daa dal ci waa opposition waa waa pouvoir bi. ñu tàccu. d'accord am réew du doxee noonu. d'accord émission bi léegi mu jeex honorable